du état moo ko fa yóbbu pexe ak mën-mënu boppam ak dimbali borom moo ko fa yóbbu mu dem ba jeexal mandaam ñoom ci seen biir ñuy discuter mbirum guerre ëpp na at mu soog a dem ci juge bi ñu jël juge français bu ñu jox dossier bi juge boobu ñëpp xam nañ ni ku jub la ku xam liggéeyam la ku rigoureux la mais ya nañ ko bàyyi mu def liggéeyam juge bi bu paree ci Lamine Diack ni ñu jàpp nañ ko preuve yaa ngi ni ñu mun ko comprendre mais li mu waxanteeg juge ci bureau juge bi journal Le Monde génnee na ko naka la journal Le Monde fekkee wu ko na am ba def ko moo lay njëkk a wan ne manipulation am na ci bi ñuy génnee génne wuñu yëpp li mu wax dañu jël lu mu tuumaal nee nañu ay nit yu nekk Sénégal yu doon def politique opposition bi nga xam ne manipulation lay xeeñ ñaareel bi boo nee diw dafa jël xaalis yónnee ko diw da ngay wax traçabilité bi c'est-à-dire ci banque bi la ñu gis ni yónnee na ko chèque defar na virement def na transfert mais loolu yëpp amul preuve daf ko wax rek ci audition rek ñu ne ñooñu sàcc lañ dañu war a arrêté bëgg a taal dëkk bi loolu jaaduwul suñu mbokk suñu compatriote bu nekkee ci jafe-jafe dañu war a solidaire parce que ndax li mu def ci réew mi borom kër la ay doomam a ngi dégg ay jabaram a ngi dégg war nañu am kersa preuve yi amagul arrêté guñ ko ñu koy accuser yenn loolu lu rafet. Platini ci situation bu xaw a mel noonu la nekk France mais gisuloo li mu def France ci tax na dégguloo kenn biir France ngaññee Platini ñu ngi bàyyi yoon def liggéeyam Blatter moom la preuve yi gën a accablant mais dégguloo Suisse ku def campagne contre Blatter yaa même mais nañu tey ñu ànd ak dal ak dignité ñu respecté suñu bopp respecté suñu réew am na loo xam ne nit nit du tas réewam ci loo xam ne dara wóolu la ci ëpp na Omar Sarr li ma ci mën a wax kàddu yi mu wax du kàddu kilifa mais jarul a topp pour intérêt démocratie ñu ngi ñaan président la République ci nouvel en bi mu bàyyi di procédure bi moom ak ñoom Toussaint Manga ak xale yooyu ñi doon taal bis bi nag ñooñu booloo ma leen ci da ñi wax laa wax ñi xam ne dañuy wax wax bu ëpp mais ñi doon détruire bien publique nañ leen topp nañu jël auteur président xam ni Sénégal mënul dem sans une opposition sans démocratie il y a pas de démocratie il y a pas d'opposition pas de démocratie sans opposition président wax ak ñoom ñu bàyyi ko mu dem affaire bi jeex mais ñoom tam nit ñi wax ak ñoom kilifa diine yi ñu woo leen yedda leen xas leen lii nit du ko def ci sa réew